asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ci ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke di xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér sëriñ Jili Mbàkke di xalifa sëriñ Moodu Maamun sëriñ aboo Mbàkke moom sëriñ Moodu Maamun soxna Daba Mbàkke bintu maam Cheikh Anta Mbàkke ci kilifteef ak teewaayu sëriñ Cheikh Anta Mbàkke moom sëriñ Moodu Roqeya di xalifa sëriñ Moodu Roqeya ak mboolem njabootuk sëriñ Moodu Roqeya sëriñ Fàllu Galasi la mooy am ci di leen yëgal bisu sant sëriñ Tuuba sant sëriñ Moodu mu baaxoo ko amal at mu jot ca Daaru Salaam atum ren mu war a dëppook gaawu di fukki fan ak ñett ci weeru avril te daaru salaam mu fas yéene nag rendre ci hommage soxna baali mbàkke moom soxna maymunatu mbàkke mu sëriñ tuubaa xaadim rasool nekkoon xaritam soppeem sëriñam waaye mu dara jaale ko nag soxna moomi kebe di jigéenam xaritam wóolëreem ba tax na mu ci woo mbooleem njabootu sëriñ tuubaa bàyyul kenn mbooleem seexi sëriñ tuubaa yi di jiital sëriñ abdou fata mbàkke moom sëriñ falilu sëriñ moustapha mbàkke moom sëriñ abdoulahad sëriñ murtada mbàkke moom sëriñ abdoulahad sëriñ Abdul Xaadir ak sëriñ Abdul Karim Mbàkke moom sëriñ Falilu sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad sëriñ Abibu Mbàkke moom Cheikh Amadul Fadal sëriñ Sidi Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Ahmadou Rafahi Mbàkke moom Cheikh Amadul Fadal ak sëriñ Ahmadou Badawi moom Cheikh Amadul Fadal sëriñ Mamor Say Jaxate moom Cheikh Amadul Fadal sëriñ Murtada Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad sëriñ Basiru Mbàkke Abdul Xuddoos sëriñ Motloo Ngaab sëriñ Maam Cheikh Mbàkke Falilu sëriñ Cheikh Aliou Mbàkke sëriñ Moustapha Mbàkke Lakram sëriñ Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ Soyibu sëriñ Sidi Mbàkke moom sëriñ Amidou Mbàkke sëriñ Isaa Mbàkke sëriñ Mbàkke Astu sëriñ Cheikh Abdou Mbàkke moom sëriñ Amdi mu soxna Maymuna Mbàkke sëriñ Falilu Fall moom sëriñ Moodu Aminta ak sëriñ Moustapha Fall Daaru Bayre di ko yëgal xaritam sëriñ Sidi Naar Jeen waaye di ko yëgal mbooleem njabootu soxna Faatija ba ci njabootu soxna Maymuna Mbàkke bàyyul kenn di ci jiital soxna Gàddu Buso ak soxna Aji Maam Buso Mbàkke moom sëriñ Abdou Samad di ci woo soxna Baali Mbàkke moom sëriñ Muntaxa soxna Maam Say Mbàkke Falilu soxna Mbàkke moom sëriñ Murtada soxna Maymunatu Mbàkke moom sëriñ Moodu Faati Xari soxna Maymunatu Mbàkke moom sëriñ Murtada soxna maam xari mbàkke moom sëriñ murtada ak mbooleem njabootu sëriñ basiru saar jaamu sëriñ tuuba di ci jiital sëriñ sang saar ak soxna maam jaara saar di ko yëgal soxna kinne mbàkke moom sëriñ tuuba cheikh abdoulahat di ci woo ñëpp bàyyul kenn mbokk yi bis baa ngi noonu war a nekk samedi fukki fan ak ñett ci weeru avril ca daaru salaam sëriñ fàllu galas sila di ci woo ñëpp bàyyul kenn wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu